كل حليما لمن أندر به كلت السنون نزعت بنا المي بالحق مادع لفرد على خلق وناها ديدنون نويت دوام ذكري والشكر خادما لخير الورى نعما حسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي خريب شاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يوسن نقي تقي صالح وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يزعنون نديب أديب صا حياء مواثب نذير لمن بالغور والزلق يعلن نزيع بلا قسم عليم على من يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهل الذي الخير يدمن نخيب رقيب موس تجيب مشاذب مسيح ملاذ وماهٍ ومحسن نسيب حسيب صوم عطايا مقدم هو الناس والميزان لنعم الممكن نبي له زأن عزيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبي لوسن عزيم مبين هو المصطفى المختار وهو المهين نبوة قبل البرايا خد جلا لو سبق إن الجاء في الدين يحسن نجيد مجيد ما سل من لو انتهى معلا ومهدال ومغن ومعلن نفعني وإبقائي وفوزي بالعنان بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعة في سر والجهل لي بدأ عطرا يحسن نويت رضا الرحمن بخدمتي لمن إلى خير عويسا خمن ليس يزعن نويت رضا الرحمن بخدمتي لمن إلى خير وسام خمن ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله صدر وسيخ إلى خير الذي يتقان نهى الواحد القهار عن الهداب فراد ومسني أدبره مسملين نففت بي أرضا أسائدها صفات عليه سلاما خير مون يمكن نسافة كل من الرخو تعالى وسنة إنسان ربي أبين نزافة كل من اللخو تورات وسنة إنسان ربي أبين نزوت بكوني عاب ربي خديم وصفى بي أمري ودار ودنون نويت بما الاختيار رسكرا بقمته لخير الورى نعما مغفى المحين نويت بما الاختيار رسكرا بقمته لخير الورى نعما ثمانية قل لا إنما المؤمن عن الميل عن مخده روى الحق أخمن لمولاي وادوم خديما لمن أندر به كلت السنون نزرت بنا المي بالحق مادعا لفرد على خلق وناهني ديدن نويت دوام أسيك روى السكر خادما لخير الورى نعما حسين المسيم نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي خريب شاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يوسن نقي تقي صالح ومسلم الله بالحق يزعنون نديب أديب صا حياء مواثب نذير لمن بالقهر والزلق يعلنون نزيع بلا قسم ci turu Serigne Abdoul Baraka Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Fadal ci turu jawriñam Cheikh Mouhamadoul Bachir ak ki nga xam ne moo yor kàddu kër gi di nuyu njabootu Cheikh Mouhamadoul Fadal gépp ni ko fàllu galas si la leerale léegi rek ñëpp ñëw nañ nuyoo bi nag dañu boole nuyoo yëpp nag jébbal ko xaadimu rasul Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu jébbal ko sëriñ Touba yàlla na fi yàgg ca ci barki seexul xadim di ak ñun murid yëpp ak taalibe yi ñu maase ñaan ci barki sëñ tubaa mi yor lépp sëñ muntaxaa mii yàgg fi lool yàgg fi lool yàgg fi lool ànd ak wér li mu bëggal sëñ tubaa lépp mu liggéeyal ko ko ñu ànd ko ak moom ci barki sëñ tubaa waaye saa yu damay faral di wax ne. sëñ Muntaxa saa yu ñu déggoo kàddoom. suñu suñu taalibe day gën a yokku. goog taalibe yi day gën a yokku. bokki sëñ Touba yëpp day gën a yokku. sëg bëgg sëriñ Touba day gën a yokku. ak fonk sëriñ Touba. ak gëm ko day gën a yokku. nee na nag ku am kilifa gu mel noonu nag. da nga war waxtu ne nga koy ñaanal mu yàgg fi ndax waxtu wu ne mi ngi wax sëñ Tuubaa kàddu yoo xam ne nii kenn mësu koo dégg nee na ñun ñii ci moom lañ koy dégg ndax dafa wax ne sëriñ Tuubaa menn mbindeef moo xam ne sëriñ tubaa ñeen la amut amut ci àdduna nee na kon mooy sëñ Tuubaa mu dellu waxit ne sëriñ tubaa mii malaaka yóbbu ko malaayka yebu ko ab yaafus yebu ko ab yonent la ku malaayka yebul nag yonent yebu la nee na doomu aadama kon waru koo mën a yeb nee na kon ja nu ko doomu aadama di yebe daal jaaxal na ko kooku mooy Sëriñ Tuubaa mu dellu waxit ne nee na lii muy wax nag moom waxu ko sëriñ bee ko wax mu dellu wax ne bu ëllëgee bu nu demee yemal xiyaam bu nu demee yemal xiyaam sunu borom nekk ne. yonent bi nekk ne. Serigne tubaa nekk ne. ma weesu ñëpp. ñëw ci Serigne Touba. ndax nee na loolu la gëm. ndax nee na loolu la gëm. loo wax na dëgg. kon nag. na fi yàgg lool ci wér. mu waxin ne. Serigne Touba. Serigne Touba. xaju boromam la. xaju boromam la. ca boromam. ca yemalu ko fenn ci boppam. kooku nag mooy Serigne Touba. kon nag nun. nan sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax kii noo am noo ko am lépp lépp lépp ñu na lépp loo xam ne bëgg nañ ko àdduna ak àllaaxira mi ngi ci loxol Serigne Touba kon jërëjëf Serigne Touba nee na nuyoo bi nag jëlaat nañ ko it te ko teg ci loxol sëñ Basiru mii mu teg ko ci loxol magam Serigne Cheikh Mbacke ak njabootu Cheikh Abdou Khadir Mbacke gépp ak doom yi dong yi mu àndal ak doom yi mu àndal ak dong yi ak xarit yi ak dëkkandoo yi nee na jërëjëf Serigne Bass jërëjëf Serigne bi wax na ne fii sa kër ndax kër sëñ Fallou la di kër sëñ Abdou Khadir nee na ñëw gii nga ñëw fii ci dëkk bi di Madina mel na ne dafa mel ni sëriñ Abdou Khadir moo fi ñëw. te mooy li it li wër ndax sëñ Abdou Khadir mooy sëñ Fallu sëñ Fallu mooy sëñ Abdou Khadir kon nag boo ñëwee fi tey jii boo ñëwee fi tey jii fekk fi sa mag jii fekk fi sa mag jii ànd ak bokk yi ànd ak sa bokk yi na lépp lu la defal nee na lépp lu mu la defal xeeb na ko na ko day ñaan ci barkib Sëriñ Tuubaa day ñaan ci barkib Sëriñ Tuubaa yoon wi ne yoon wu njëkk rek yoon wi ne njëkk rek bu ko bàyyeeti yàlla na fi yàgg na fi yàgg ñëw fekk fi sëñ Abo fekk fi sëñ ñëpp ànd ak ñëpp ci barke Cheikh Amadou Fadal dëkk bii nag dëkk bii nag dëkk Cheikh Amadou Fadal la moo ko sanc am na fukki am na fi fukki at yoo xam ne demul tubaa gi yoo xam ne demul Touba gii lu dul ñaari yoon rek lu dul ñaari yoon rek bi sëñ ma Samba wàccee liggéey sëñ ma sëñ ma Ndumbe ak sëñ ma Ndumbe nee na ñaari yooyu rek la fi mas a dem Touba ñu bari ci ñu bari ñu bari ci dongo yi ñu bari ci dongo yi ak bokk yi ak bokk yi fii la ñu gënee fii la ñu gënee àdduna fii nag fii nag sëñ Fallou sëñ Fallou da koo jébal sëñ Abo mii da koo jébal sëñ Abo mii ndax xool na ko ba mu doy ko ndax xool na ko ba mu doy ko mu xam ne moo fi war a nekk mu teg ko fi kon nag ñañ ko ñaanal mu yàgg fi ak njabootam gi ak njabootu sëriñ Touba gépp wax ji ma wax nag nee na mi ngi ko wax ci turu njabootu sëñ Fallou gépp ak njabootu sëñ Touba gépp ndax sëñ Touba noo ko bokk nit ñi fu waay teew fu ne dafa war a teewe njabootu sëriñ bi bépp kon nag ñëpp lañ fi teewal kon sëñ Basiiru jërëjëf sëriñ bi mu ngi lay ñaanal bu baax liggéey bi ngay liggéeyal sëriñ Touba nga xam ne yaa yor kàddu sëriñ Touba muy lu rëy di lu jafe. lu jafe yor waaye sëriñ Tuubaa dimbali na ba wala ko Alaaji Baara joxe ba léegi monsieur Thiel gis benn jafe-jafe bi gis sëñ Mamadou Lamine ñëwee da koo feddli sëñ Cheikh Mati lay feddli ko sëñ Muntaxa feddli ko kon nag yoon waa ngi nii bu ko wàcc mukk yal na la yàlla musal ci lépp rek sàmm la yaa njaboot gépp ci barki sëñ Tuubaa sëñ bi ni nga ñaan nag. réew mi nag. mën naa ñaan bu baax naa ñaan bu baax. ñaan suñu borom def jàmm. yàlla sunu ñaan sunu borom def fi jàmm. ndax jàmm kat. mooy lépp mooy lépp. ko mu jàmm ko mu jàmm. doo mën a jàmm yàlla. doo mën a jàmm yàlla. doo mën bokk. doo mën a doxu bokk. doo mën a liggéey. doo mën a liggéey. boo ko amee nag. da nga mën a liggéey. da nga mën a liggéey. mën a jàmm yàlla. mën a dox ak bokk ca ëllëg ko amut jàmm wala iyaasu billah yàlla na nu yàlla defal jàmm def ko ci réew mi defal ko Afrique defal ko Asie Europe ak adduna bépp rek fépp boo xam ne ab jullit danga fay yeewoo nañ teewlu ñaanal leen ñu am jàmm rawatina suñu bokk Palestine yi par jamono yi nag sonn nañ ñi ngi ray gone yi di ray mag ñi di ray jigéen ñi ci loo xam ne teguñu loo xam ne teguñu ko fenn ngir ëpp doole rek waaye ñu ñaan yàlla mi mu not ñoo bu baax a baax ba ba ñu bañ a am ndam ci barke sëñ Tuubaa kon sëñ Abo Mbàkke nun noo ngi nii rek di say taalibe sëñ Abibu mi ngi nii toog ak ñëpp ñoo ngi nekk sa gannaaw di diglu sa ndigal guddi ak bëccëg loolu digal ñu def te ñu fas yéene nag doonu tere dara kon nag Mbàkke yàlla na fi yàgg ci wér sa ñaari mag yi doxe woon Cheikh Mamadou Sa Fadil ak moo Hadj Modou Lamine. yoon woowu rek moom nga jaar. wàccoo ko wàccoo ko. ndax Mbàkke yërëm nga nu. yaa ngi nuy sagal. di nu dimbale. boole ñu ci sa bopp. loolu nag leen a yombut ci kilifa. nee na wolof day wax ne. yal na ma yàlla musal ci kilifa mbët. kilifa mbët baaxul. ndax boo ko jiitoo. ndax boo ko jiitoo. day. day for for su gunóor. day for gunóor yi. ba toll ak moom. mu ne damaa def morom. mu ne damaa def morom. boo ko féetee boo ko féetee gannaaw. day jóg sama nangam. mu ne. day jóg sama nangam. day jóg sama nangam. kon nag kilifa moom. kon nag kilifa googu. yàlla yàlla musal. yàlla nu ci yàlla musal. amuñu ko. ne nag mbàkke nun yàlla dimbale na amuñu loolu. kon sëriñ bi nag bu baax. ñu ngi sant ñëpp. nee na gërëm na ñëpp. nee na mi ngi ñaan ci si barkib Sëñ Modou Fadel Sëñ Modou Fadel yàlla faj aaju yëpp képp ku fi teew képp ku fi na nga teewlu na teewlu ñaan sunu borom ñaan sunu borom mu dimbale leenu mu dimbale nu saxal ñu ci ak taalibe saxal ñu ci ak taalibe kat ak taalibe kat moo dox suñ digganteeg sëñ Touba. bu rafetee lépp bu baax. bu rafetee rek suñ lépp baax. nan kon nan ñaan suñu borom mu sàmmal ñu suñu taalibe. nan am fulla ci ñun nag. nan am ci fulla ñun. ndax taalibe gi. ndax gi. ak ngor gi. ak ngor gi. nañ ko yóbbu ca rug nañ ko yóbbu ca rug seen. ca bañ a ngepp. ca bañ a ngepp. ndax boo boo boo ŋaayee rek. ndax boo ŋaayee rek. léeg-léeg léeg-léeg nga rëcc dem dem. nee na am lu rëcc dem. waaye nañ ko kepp ngepp rek. kon nag jërë ngeen jëf rek. bokk yëpp rek sëriñ Mourtala neen mu ngi sant ñëpp. ak bokk yi gis nañ taxawaay bi gis nañ taxawaay bi ak yëg ak yëg gi ak safoo gi lépp gis nañ ko kon nag jërë ngeen jëf nee na mi ngi leen baalu àq nee kàddu moom da <laughs> dafa mënta wax waaye mi ngi koy jégglu wasalaamaaleykum wa rahmatullah nattab li wu leen ne sëñ Fallou coono ba mu daj ci àdduna ci dëkk bi la ko daje tumuranke groupe góog ji ne fekk na ko fii mu toog fi di ko muñ ngir liggéeyal sëñ Tuubaa lu mu am defal na leen ko ci dëkkub sëñ tubaab bi lu mu am defal na leen ko ci jumaa yi sëñ tubaa ji sëñ nag dañu woon ku liggéeyal sëñ tubaa murit yee la war a fay ba mu xamee ne sonn na madina mbooba gii muy madinatu salaam la fab doomam ju baax ji teg ko fi lu fi nekk moo ko fi def moo fi andi rang-rang bi moo ko fi def di ci góorgóor la ba def fi poste de santé bi ndox moo fi seen moo góorgóor la ba def ko fi lamp yi moo def moo góorgóor ba sëriñ bi ñaanal leen ko fii nekk njënd ndax mu sañoon kot mu nekk seetub Touba ba lu nit xool Touba gis ko fii loolu nag du ko sàkk fenn lu ci sëñ Tuubaa ñaanal leen ko yàlla defal ko ko fi ndax amul furut Madina booba ndax ndigalul sëñ Fall te sëñ Fall ko jox te kenn nattabli na moom mi sonna na fi kon nag na ngeen ko ñaanal yàlla ba dëkk bi na ko bëggee mu amee ko na dafa am ab aaya bu am xelam dem muy li ka man allaka an baynaat wa yahya man ayya an baynaat nee na loolu mooy bu mu ko gisee fii rek ñi nga xam ne lu baax bëgguñu ko seen xol moom noppi naa sedd ba mukk waaye tey jii nag image bii ñi bëgg lu baax seen xol sedd na ci sëriñ bi ñoo ngi lay siyaare de di la nuyu di la wàcce ci sa wàccuwaay xëy na sëriñ Basiiru li mu wax ci moom mii xol bu sedd bu sëñ Basiiru am ba munta wax nee na moom mii am na bu ko raw ndax da ngeen di yaari jëmm ba noppi di jënn jëmm nee na looloo tax moom mu xaw cee mal placé nee na bu sañoon genn kàddu du ko yëkkati ndax taraanga ji kat mbàkke li muy rëy rëy defal nga ko sëñ Basiiru mi waaye moom mii nag moom nga ko defal mbàkke ndax nit bu ngeen bokkee yaari waajur lu nekk ci yow nekk ci moom loo def ci moom rek teral nga ko tëral nga ko te koo teral nag tëral ko waaye koo teraxol mu turxu la mbakki balla ni ngeen ñu terale suturaale ñu ko yëkkati ko ci suñ jëmm yii yal na la yàlla teral sëriñ bi yàlla nga noppee gis lu la naqari ci àdduna yaa ku la yaakaar ak ku la bëgg ak ku la wuy si ci dëkk bi nee na li ne ci ab xolam day lott na lool ci aw làmmiñam mu tudd ko waaye nee na li muy sàkku daal mooy nga ñaanal leen ñaanal ko sëriñ ba Basiru mii nga xam ne yoon wi ci boppam dañ ko cee dénk mbir muy liggéeyub sëriñ Tuubaa nga ñaanal ko nag yàlla dimbali ko ci ndax ndaw la àggugul fi mu jëm waaye nang ko ñaanal mu àgg fi mu jëm ndax dañoo wax ne ku dugg ci pake bul ñaan paquet bu mucc ñaanal capitaine ba koy dawal mucc rek bu muccee lépp mucc ndaali moom mii moo ko yanu te bu àggee lépp àgg waaye leneen lu ci xewit danañ ci mos ñun ñëpp kon nanga ko ñaanal yàlla musal ko yàlla gunge ko suturaal ko ba bum ci yàq bum ci yàqule nee na mi ngi sant nag mbooleem ña ànd ak sëñ Basiiru ñëpp mbokki Mbàkke yi mbokke bu soobe askan yëpp a fi teew dafa am xelam daa dem ci lu xam ne Baye Serigne Ndiaye Guédé moo ko waxoon nee na daa am bi sëñ Fallou woo ko mu ñëw mu ne ko Serigne Ndiaye danaa la defal loo xam ne day sëñ Touba képp ko mas a defal kenn yaa ko ñaareel te du ñett sëñ Touba sëñ ma Samba la ko mas a defal danaa la abal sëñ Touba ji te juru la. màggal gaa ngi ñëw bu bu ma kenn soxlaa gis ku gis sëñ rek gis nga ma lu waay di wax wax ko sëñ lu waay di wax def def koog moom ba loola jàllee daa woo mbokki gede yëpp ak ñi ko seqal ñëpp ne leen damay santi sëñ Fallou baatub jaajëf moom damaa xamut lu ko kawe su ma amoon lu ko kawe dama koy def teraanga ji nga ma teral day daa mel ne ku jël njoowaanu wurus dem ba ca kaw soror bee nga aj ka ca kaw na ma sëñ Ndiaye toogal fee ma toog nga ne yéen ñëpp xool leen ko sëñ Ndiaye nga ne ca kaw kon da loole nga ñu defal tey jii rek sëñ Basiru mi nga teral defaloo ko ko sëñ Abdou Khadir sa wayjur wa nga ko defal sëñ Abdou Khadir ak sëñ Fallou nag def ci ak sotti ji rek la yéen màggal gii yéen màggal gii màggat ñii yéen màggat ñii sëñ Abdou Khadir moo leen feral ñun mag ñii ñun moo ñu tudd kon mag ñi ak màggat ñee fi ne du wax gone yi juróom benn fukki ku ko laax dootoo gone ci mag ñi lañ bokk kon sëñ bi suñ xol sedd na Mbàkke lii nga defal sëñ Basiru de askan wépp nga ko defal askanu Mbàkke ak mbusoobe nga ko defal defal nga ko waa Gede defal ko waa Mbakol defal ko Afek Jolof gépp ku yaakaar sëñ Touba defal nga ko la sëñ Mbay Jaxate waxoon sëñ Touba na ko ràcc nga ndab uppal nu ko ràcc nga ndam uppal nu ko sifteey ngërëm rimbal ñu ko wimbu wimbu wimbal ñu ko ba weññe dem nga jox nu ko yàlla nga bég yaanu bégal amiin sëñ Mourtala nee na bokk yi nee na bis bii nee na bis bii bind la bu bees ci bis yi ci yoonu murit buñ jógee fii képp ku bokk sëñ Tuubaa war ngaa roy bis bii maa ngi kat mag ñi dañ daan demante di waxtaan di ganente loolee daa dem bay bëgg a jeex rikk waay nañ ko téye dundal ko ngir jëmmi sëñ Touba bis bii ku fi jóge koo xool na xam ne ñun day sëñ Abo mi ngi dundal bis bi kon ñépp war nañoo roy ci sëñ Abo wasalaamaaleykum na ñëpp bismillah Ramana